dégg ngeen de li mu àtte nee na ñoo yor place yu baax yi ñoo yor koom mi ñoo yor buntu liggéeyukaay yi mhm. ñoo yor ouverture yi lépp luy bakkane mbaa luy maye am koom ci ñi nga xam ne am koom moo leen gën al ëllëg seen yomal xayam nee na ñooñu ñoo ko yor jant bu nu karfatee ne yow am na looy daw ci ñoom wala yaa ngi leen koy wax wala yaa ngi leen di ñooru wala yaa ngi leen wan ne lii du ma ci mës a dugg wala duma leen jox ab loxo nee na mën nga caa yàqule fii dunyaa wa laa laaxiratan ci wàllu àdduna muy am koom nga yàqule àdduna yomal xayaam nag mën nga faa bañ a yàqule moom ndax lu yàlla bañ yonent bañ ko sëñ Tuubaa bugg ko maam Seydi Hadj Malick bugg ko say maam buggunu ko nga dem ba foofa nga ne damay maslante ak loola

dama ne moo ko dàq julli moo ko dàq julli bu jël exemple ci moom gi si moo ko dàq julli wallaahi li may wax ñun ñëpp ñaan laa leen képp ku ko xam nga xool góor gi si Dieng di nga gis am mandarga ci jëbi fu mu taxaw fu mu dugg même su doon dem fii su wàccee otom su ne asalaamaaleykum sa salon sax day ñëw rek kàbbar daal di dóor ñaari rakk daal di jóg toogaat billaahi wallaahi gis naa ko kër njaat mu def ko dara jëye borom Tuubaa ma ne njaag mais kii waxtu jotul mi ngi julli mu ne ma nii lay def ah. nii lay def moom dégg nga bu ci dugg. non waxu la loolu. mais boolewul la waxuñu la loolu. mais dama la cee boolewul. non du yow yaay boole ak sama taay min du benn. non bëz ngay wut. non bëz ngay wut. non non bëz ngay wut. non non bu lu bëz ci man. bu lu bëz ci man. d'accord li ma leen di wax mooy. fi ma toll ak ñoom di wax ak ñoom ñoom doonoo bëgg a dévier. fas leen bal foofu nanu bëgg a daw gune yi képp ku ko ci am mu nekk ca Europe loo ci mën nanga xar sa tànk tubéy bala mu laa ëpp doole mm-hmm. jant boo bay bay lee ba mu ëpp la doole ginnaaw nee nanu su amee fukki at ak juróom-ñett mënal la too ko dara mm-hmm. su dee bu jigéen ba su ko neexee mu toppi tubaab bu góor ba te alxeyri di jub mm-hmm. su dee bu góor ba su ko neexee mu génn di fanaani ci kër tubaab bu jigéen ba te doo ci ñemee wax dara wala doo ko ñemee jëf dara mm-hmm. foofu nan la wax xob ku nag bala ngay lakkale ci ngune nay baagante diggante foofu ak fii su ñuy dem Touba jàpp ci loxoom nga di ko kole maamam su maamam dee julli muy toppandoo di julli su fekkente ne julli na ba pare mu def na nga xamee ne noonu la seen Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daan def ak seen Touba su sëggee ba dëpp ab julli ba ab jëm mu raam yéeg ci kawam ak nekk ci wetam mu am yërmande ba teggeeku loolu entraînement la boo xam ne dina ko permettre ëllëg ndax l'enfant copie trop xale day copier na ñëw na gune yi ñëw indi leen leen ci kaw mm-hmm. su dee dangaa jël xaalis bi di ko jox ñoo xam ne c'est des malhonnêtes. ba tey moo gën a sedd boo ko fa bàyyi woon. su fekkente ne doon la ne soo ko yóbboo daaree seen baabakar daaree sëñ Mor Mbaye Cissé daaree sëñ Salim daaree sëñ soin bu ak foo ko mën a yóbbu mu yàqoo fa moo gën mu yàqoo fooye mm-hmm. sama doom yàqoo ci daaree seen soin bu moo ma gën a mu yàqoo fële. Ah ca tubaab ya. Mm-hmm. sama doom yàqoo ca nasaraan ya. mu yàqoo fii ci kër Sëñ wala kër maam Seydi Aj Malick Si wala mu yàqoo ñaseen moo ma gënal. c'est man moo ma gënal man laa wax. veillé leen ci damaa jóge Paris wàcc Lisbonne ànd ak Sofia Diatta ak Carlo ak Pendo. 24 heures mënoo fa xam dara. ñu ne cëpp ci biir bi ma gis genn gune mu di ma xool tàllal ma loxo. nga ne du ma jëw Sofia bi du ma fen ndax li ma wax mi ngi toog. te ñeneen ñi Carlo dee ngi toog. Mm-hmm. genn gu daw ma ko loxo mu ñëw ba cent vingt bàyyam uuf ko ma ne ko foo ko kii nii ba foo ko jëmee mu ne ah man ma déglu la yow tamit feer ma ne ko an ah, ci lan mu ne nee nga ba ñu leen a ëpp doole indi leen fii donte konte doon yi baagante di dem ak ñëw nu xam li nekk fii xam li nekk fee waaye li nekk fee su ëppee li nu xam que li nekk fii musiba day am. moo tax ma koy yóbbu ndar laa dëkk. keroog la tuddante ak ah, kii kii balaa technicien laa ba mu ne ko ñoo dëkk booru jàmm gën nu waxtaan ba waxtaan ci bugaan mu ne ko ñun ñoo dem ah. muy faama. ma nga dëkk ca Ndar doon yóbbu xale ba xale ba sëñ Fallou la tudd. Mhm. lu leer laa la wax loo xam ne ñu ngi leen di dugal avion ci bi ñuy néew doole di leen indi ñuy adapté wu di jege suñu toogee ak diinu delloo leen diggante boobu dinañ fi xam julli dinañ fi xam yërëm kilifa dinañ fi xam way jur yow ndox soo su génn sànq tey wax ci ne am na ñoo xam ne nga bi soo xëyee soo ko rombee soo ko nee àlloo bi rek sedd na ab xolam loolu nangu mhm. am na fa ñu nu yóbbu ci. maison de retraite yi mu gën a sedd lool fi nu nekk nangu naa mais man gëmuma la gëmuma la. waaw moo ko de. ña fa seddale. mais mooy ñi nga xam ne doonoo liggéey am ay compte bancaire yor fortune au lieu ñu yóbbu leen ca maison de retraite ya ñu jël koo xam ne daf leen di toppatoo nekk ak ñoom ci seen kër à domicile am na. ay tubaab. Mhm. yu am doole yoo xam ne doonoo jël ñoo xam ne moo xam muy sénégalaise moo xam muy nu mën doon waaye à sil ci këram la leen fekk moo leen di yëkkati. Mhm. moo leen di tëral moo leen di toggal moo leen sang moo leen lalal. Mhm. moo leen di defal lépp. nekk ci këram moom ci këru boppam. dëgg la fii ak génnul àddina doomam du nu am accès ci kontam doom mënu koo jël kenn mënul jël ab xaalisam xanaa mu génn àdduna. ak sa tubaab yooyu soo leen nee yëkkati xaalis bi jox doom yi mu ne déedéet su jeexee doom yi daw ba ma doom ya génn nañu bu góor ba génn na bu jigéen ba génn na am ci ñoo xam ne ñu ngi ci maison de retraite yi bala noo seet si seen ndey dina yàgg lool am ci nag ñoo xam ne semaine bu leen neex jur sa ndey sa ndey jur la nekk ak yow guddi ak bëccëg nga dema dem ba jamono nga ne woo yoo daf may lakkal ndigal ma daw dénkaane ji ko xaw ma loolu ku ko xam ànd ca waaye képp ku la ne maison de retraite yooyu dafa neex a neex ba doon waxtaanoo di xàqataayoo léeg-léeg am ci ndey yoo xam ne fu mu taxaw day yàq ay tànkam. Mhm. yaa ko war a toppatoo yaa ko mën a defal. ni mu amee ci bu ñuul bi noonu la amee ci bu xonq ba yow bu xonq ba dinaa la roy te nga dem tëdd sa ndey bu kooku su taxawee seban lal bi mu tëdd ba muy tooy kan moo koy lalli kan moo koy defar. Mhm. man xam naa lan mooy jarak xam naa li ci jarak damaa yore jarak ñaari jarak. bu góor ba fii la génnee àdduna bu jigéen bi fii la génnee àdduna barka borom Touba wallaahi sama baay Cheikh Fall maa ko taxawu ba defuma en 36e fii ci hôpital Dantec boobu Salif si lay am moo fi nekk directeur en 1971. jërëjëf Père. kooku sama baay la sama ndey maa ko leewu te am na doom ju jigéen de te jigéen mooy yor ndey. Hmm. waaye caaro yi géej mën nan maa seede. ñi bokkuma ak ñoom. Hmm. fi may dugg di fa xuus. képp ku ci yor sa doom nàmpatal ko fii ci lii mu xam ci culture bi mhm. nàmpatal ko mu xam ko mhm. muy baagante waaye soo ko bàyyee ba mu gimmi fee loolu doom lay xam ci loolu dong lay nekk ñi ñuy jox seenu xaalis nag toll ca kaw bëgg ngeen dimbale leen ñooñu soo leen joxee ab xaalis xam nga ne yow yaa ko tey bukki kenn du ko dénki seel koo xam ne dafa endetté jusqu'au cou dugg na ci natt yi dugg ci natt yi ba natt yi jiital na ko ba ñemewut fanaan àll moo la gën a bëgg xaalis gën laa bëgg col gën laa nangoo làng làng bu nu dem dina fa fanaan ba bët set xam kii fanaan ci làng xamul lu xew ca këram mën nañ ko ginnaaw saay-saayee doomam foo nekkoon ñu ne diw moo doon yebbi ca yebbi ga laa fanaan mhm. jël ñu leen escorté ba kenn du fa dóor pompe à di jël xaalis ba nga fanaan ca làng nga ba bët set nga ñàkk ca ay 10 millions 15 million 20 millions sa doom ñu nga koy tëddee ca kër ga xamuloo ca dara sa doom ñu ngi koy jàngal loo xam ne xamuloo ko sa doom génn na dem am na mauvaise fréquentation boo xam ne mënoo cee xam dara balaa bët set mu toj dëkk bi ñëw daal di tëddaat mënoo ci dara xam na ne sama yaay dem na te day bala moo ñëw elle revient tardivement il faut ngeen jublu ci école bi ngeen jël alxoraan dugal ko ci biir école bi jël alxoraan dugal ko ci biir école bi mhm. nu boole njàngum tubaab ak njàngum alxoraan mooy li xale bi màggale ko waaw kooku stratégie la man kaw kaw bi ci sama xel mu gàtt loolu mooy sama contribution soo bàyyee Amérique ba mu ëpp la doole bi lay bi lay di xam ne di xam ne di nga xam ne bant ca tooy tooy ba da koy jubbanti Sophie pour revenir ci euh, fi nga xam ne ci la père nekk mm-hmm.